ماشي Arab Nul Dine da nekk ni grâce pour maam sëriñ association di tënd na da toñu ñu de da way maam sëriñ waaw waaw keroog ngeen teg seen xel dafa fekk léegi maanaam ñun war na conférence de 19. Hmm. ma jot leetar bi ñu gis ci ne léegi maanaam maa ca xeer. Hmm. dañoo dàq suñu conférence. ñu ngi ñëw. te ñu ko nekk léegi maanaam dëj bi dëj bi tax suñu dëkk la mu defaan na la te euh, <laughs> ñun ñëpp dañuy bokk sant yàlla xam nga liy dogal yàlla xam nga liy bindoo ngeen ko ba pare. Hmm. waaye yàlla mooy def. boo defee li nga bëgg ak li nga mën moo ci bind. dëj yi bëri na waaye yàlla dimbali na ndax yow yaa laaj daaw doo nañ ko xool ndax alaaji daaw bi dundee ñëpp tey kuy xool alaaji daaw rek ne moon génn pour mu génn ñu lan kon yàlla na fi yàlla oh, yàlla iya, iya. bëggoo lu may diine ji tariixa bi bokk boo bëggoon leneen te yaa nga toog ñu di la yónnee ay amuloo doo jàng waaye yaa nga toog sax naan ngay bind lii ñu ngi ñaanal ko ci barke El Hadj Daouda ñu bind ñu di la fa fekk wala ngay dem di liggéey ñu di la fay fi am xam-xam fii iya, yow ak inspecteur Abdou Niang suñu doomu ndey def naa ne kenn ëpp na waaye ku leen gis rek day yaakaar ne yéen xam ngeen dara sculpteur Abdou Niang ku ko gis day yaakaar ne xamul dara waaye yaag moom xam ne sa doomu bàjjan la tey ci département bi waxuma la département bi waaye ci Sénégal bii bu ñuy lim borom xam-xam yi ñu am xam-xam ci xam-xam bu njëkk ba nga xamee ne boo ñëwee tëral téere yi yu xonq yeeg yu weex yi ñu jàngal la ko yéen kenn suñu leen tey kenn gën leen ba yar kenn gën leen fi kon yàlla na yàggal moom buñ ko ko yëgaloon jaral na ko ñu mu am buñ ne ko woon dañ ko yàlla xam jaral na ko ñu waaye wax ñu jërëjëf jërëjëf yàlla yàggal Thank you. ñu ngi jégalu waa jàngalekat yi. dañuy dafa am genn góor. bi El Hadj Abdoulaye di gën a. bokk na ci ñi mu dénkoon njabootam. jadi di mau mawdu touré yónni ma fa ba ma eggee ma am ñu fa daal yu bëri xam naa yi nag su ngeen ko su ngeen ko yuguloon ñàkkoon na waaye ba fekk ci daal mu ne ah wax di kenn dana ko nangam mu ne booy bind bisimilah rahmaan rahim nooy def Tá que está que, de